ñun ñu nga xam ne amuñu xam-xam amuñu dara ñoo fii bëgg a yàq réew mi réew mi ñoo ko bokk duñ nangu kenn yàq ko incha allahu rabi. loolu maa leen ko wax fii ñu ngi koy déclaré maintenant fekkee ne troisième mandat moom mooy taal réew mi kon dina tàkk parce que Macky il fera un second mandat de cinq ans incha allahu rabi. Giar kontaanee gars gis ngeen vidéo bi vidéo bi ñu ubbee. su ngeen gisee ñu ubbee ko rek dañu bëgg a wax ni ñëpp xam état d'esprit ñi nga xam ne ñooy exercer pouvoir bi en ce moment kon a mbokkum réew mi la ci C'est bon TV comme ñaari junni yoo may mayal ku la neex mais soo bëggee dégg-dëgg jàppal C'est bon TV tey nag euh, chronique gu tey bi ay révélation lay doon mais tamit dinañ wax ci actualité comme vidéo bi ngeen déglu noonu ak euh, cortège Ousmane Sonko bi ñu attaqué. Euh, lan moo ci war a xew xam nga arme yi jënd nervi ñi ñuy recruter ak euh, les points ah, dinañ ci wax donc ñu ubbee ko ci cortège Ousmane Sonko bi ñu attaqué fële ci euh, Cikki foofu nag euh, dinaa ci am idée bu uute ak gars yi pour man gars yi dañu cédé à la provocation parce que euh, bu fekkoon dafa nekk ñi ma gis noonu façon nit yooyu ñaari nit yooyu nga xam ni tollu tolluñu nenn meluñu nenn mooy ñi ma gis ñu dóor leen noonu dóor leen sax du njàmbarte gis naa ni dañu teel a cédé à la provocation fi mu toll nii ñi ànd ak Sonko dañu war a gën a ànd ak sérénité parce que nguur gi dafa perte contrôle am dafa perte sérénité ci xel laay waxee ah. dafa perte sérénité am léegi daf ñu bëgg a pousser ñu nit ñu nekk ci rythme boobu te nee naa leen ba tàyyi borom caq du xeex ak borom baabatu deen fi mu toll nii képp ku bëgg a changer képp ku àggut ak nguur gi jàppal ni yow yaay borom caq bi parce que ñoom 15 mois moo leen fi dese te ñoom jóge ci réew mi ci jàmm arrangé wu leen parce que ki leen war a nee na day ñafal ñafal léegi kon ki leen war a fi mu toll nii képp ku bëgg Ousmane Sonko nekk président wala ku bëgg nguur gi jóge fi. yow yaa yor caq bi fi mu toll nii yow yow yaa jàmm yow la soxal maanaam jàmm fi mu toll moo déggee ñu naan Ousmane dafa bëgg ay non Ousmane Sonko soxlawul ay fi mu toll nii Ousmane Sonko bu dee nit ku way la jàmm rek a ko arrangé ndax bu élection nekkoon tey tey tey mu nekk président de la république tey tey tey loolu xale bu ndaw buy doog a judd sax soo ko woowee laaj ko Ousmane Sonko ak Macky Sall ci askan wi loolu y'a pas kon na leen leer ni kon naa rek moo fi nekk naan Ousmane Sonko dafa bëgg a jot ci nguur gi ci ci ci deret déedéet ki duggee ci nguur gi onze morts place de l'Obélisque onze doomu aadama ñoo dee vingt trois juin wala lu ko ëpp Macky Sall jot ci nguur moom moo bëgg a bàyyi avant muy bàyyi ngor sax ci biir pouvoir am li ci dee bi muy exercer pouvoir léegi li dee ci ay innocent ci nguur Macky amul ci benn nguur bu mu dee benn jour rek trois personnes dee barki démboo Njaay waxuma mois de mars de barki démb yeewi askan bi seen liste dina jàll ak du jàll trois personnes de loolu mosul am dans l'histoire de ce pays manifester ñu rey la mosul am dans l'histoire de ce pays kon Macky baa battre na récolte ba pare kon ñun ñoo yor caq bi kon waa kër Sonko yi wala garde Sonko yi dañoo teel a perte seen sérénité dañoo céder à la provocation parce que amul njariñ ñoo ñu mënoon lañ leen neutraliser te coow du am dóorante du am parce que moo tax tey ñu ngi jéem jéem ku lay jotu la. mais day fexe fu mu gën a jege jaar la ñoom ñoo yor pouvoir bi seen dossier Adji Sarr bu vide bi lañ toppee Sonko pendant deux ans dossier bu amul photo amul vidéo amul dara lu dul ay wax kese ay sos am na ay dossiers yu fi jaar ci diggante bi gis nga ni ñu leen traité parce que du dossier wu nguur du dossier wu opposant politique moo tax ñu jàpp dossier bu vide ngànk ko di ko lagar lagaree ay ati yàlla léegi nga gis koo xam ne mu ngi lagar lagaree ab dossier. donc su affronte en amee ñu gis ay nit ñu dóor leen victimiser wu am ñu jàpp ñenn ci ay garde corps Sonko jàpp leen tëj leen defeere leen mais dafay affaiblir combat bi te amul njariñ ñooñu mun leen ne man bokk su ma bokkoon ci convent bi ak sécurité bi ma jàngal maintien de la paix kooku dañ koy ñooñu dañ leen di neutraliser te sax ful bi duñ yëg ni sax am na ay nit yu fa nekkoon doon doon doon saaga wala yuuxu parce que ñaar ñooñu ma gis naqari wu ñoo neutraliser te ñoom ñoo waxal seen bopp ko ni du woon ful population ci kii yëpp bëgg nañu Sonko dañ ko doon accueillir quelque personnes yooyu ñoo fa ñëw bëgg a semer la la la terreur mais kooku da koy neutraliser bu fekkee jàng nga sa métier da nga koy neutraliser ko mettre ko hors de dans hors de la foule neutraliser ko ba ba ba ba kii ko ba génnee ko ci ci ci fi nga xamante ni foofu la manifestation bi di am nga xam ne moom du yàq dara ci xew bi te kenn du yëg ni sax. neutraliser ngeen ko du ngeen ko du ngeen ko door du ngeen ko brutaliser mais di ngeen ko génnee hors de là-bas nga xam ni moom miñam la yor di saaga wala waxam lu bon mais dañ koy neutraliser wan ko ni yow benn ñebbe nga ci cim seppi la nank yóbbu la parce que ñun ñoo waxal suñu bopp que ni quelques personnes lañu kon quelques personnes ci ñi ma gis ñu ànd ak sonko japp naa ni waruñu woon a teel a céder à la provocation parce que amuñu luñ ciy gagner boo gisee ñaari boo yooyu ñame def loolu parce que dañ leen ko commandité parce que jëm nañ côté bé jàll loolu ñu né légui attaquer leen leen buñu ñu réagir leen ñu jàpp leen tay ji buñu jappé ay éléments songo tej leen mais day affaiblir némé ko bi rek buñ ci jaaree profito wala si ne dañuy arrêter nemmi parce que xam ngeen ni les sénégalais yi taxu djok ñom li leen tax Sonko dox bi muy dox nga Sall la ñam na xam na tour du Sénégal ci Sonko ah du lu gën parce que moom bim ko défé gis na njariñ bim ko amal na Sonko bu à l'intérieur du pays Macky Sall c'est fini lolu dafa parce que dans les grandes villes Sonko kenn mënatu ko présenter mais dans les coins les plus reculés du Sénégal fofu la soxla wané ji le fofu la soxla Macky Sall di def tourner mom mu def tour mu doon lu nga anam buñ koy defee sax dafa anam bu tak ci anam politique da ngay dem toog ak nit ñi waxtaan ak ñom ak amul meeting amul amul yuuxu débat didé nga xamni askan dañuy am proximité ak yow c'est une première te Macky Sall Sonko il gagne des points xam na ni def nous. musiba la ci mom nous mu ñu ci cédé à la provocation am te di am ay dina am ay antécédents yu yu bon ci ñun parce que dinañu impliquer gaay du ñak dañ leen di top parce que Sonko mom fi mu toll nii lu mu def gaay dañ ci jafandu donc motax man bo ma ngi leen di encourager bu baax parce que liguey sécurité dafa metti li ñuy def metti na surtout nga and ak opposant mais nañu gëna and ak sérénité nañu bañ di gaaw di cédé ci provocation parce que ñaar ñooñu ma gis il était tellement facile de les neutraliser hors de la foule neutraliser leen ba keneen bu ko bëggoon def sax day parce que nit ki ni nga koy neutraliser ful yomb na mën nga ko génne waaye yow vide ko génne ko foofu naturellement parce que yaa ko ëpp doole du jar nga koy xaañ du jar dóorante du jar sànnante parce que benn buum d'éclatement bu ndaw ci ful rek la ful est fol ci ngay gis deta lu ndaw rek gis nga lu ndaw xale bu deux ans sax mën na tas ful xale bu deux ans sax mën na tal jotaay parce que benn xeer bu ñëwee wala benn coow rek nga gis coow li commencé kenn du xam su ko defee mu jur coow boo xam ni sax ko def ko donc kon ci walu euh, euh, protocole Sonko ak nañ a seen sérénité gëna meytu du ragal fim ñun def du ragal dañuy parce que lépp dafa favorable à Sonko lépp changement dafa xeeñ nguur gi xam na ni changement moo am Sonko mënatuñ ko freiner

du am sax coow mais boo yooyu ñu may leen fi bës damm seen loxo fii gaañ leen fii ñu taf fii xam nga ñu bëgg ko nekk non yooyu moom man bokk si j'étais sur si protocole bi su bokkoon ci ñooñu dinañu fexe mais nag xel du doy peut-être euh, mer nañu peut-être kàddu yu diis na mais nañu gën a ànd ak suñu sérénité parce que fa ñu jëm moo gën a metti deuxième point bi ngeen ngeen ki nga xamante ni moom laa jiital mooy vidéo bi ma njëkk a dugal nee na réew mi tàkk ou pas Macky Sall day def troisième mandat loolu garaawul parce que waxu ñàkk jom yi moom yàgg nañ ko dégg ci politiciens yi ci brebis galeuses yi nga xam ñoo bokk ci parti yi nga xam ne ñoom ay prostituées lañ ñooñu lu ñu mën a def ba parti bii dégg leen lu ñu mën a def ba seen chef de parti kontaan dañ koy def. non lañuy exercer le pouvoir parce que ndoddu askan wi ak deretu askan wi mom lañuy dundé té kuy dundé deretu askan wi ak nelawu askan wi do bëgg mukk wacc ci nguur parce que néna njamte la njaamte tuba bi sax bëgguñu won mu jum fi dafa dem ba mënatul nekk mais n'ok nit dafa neex di dund di dund ci deretu nit dafa neex di du tok ci kaw nit manam mu la di la dafa neex té ñun loolu lañ leen def léegi moom nag comme xalaat na ci réew mu tàkk ndax 2019 waxul Macky Sall su amee suñ ko su amee deuxième mandat réew mi day tàkk léegi li tax mu xalaat ni rek Macky Sall su bëggee troisième mandat réew mi mën naa tàkk mooy wane ni mooy wane ni jox na askan wi dëgg jox na société civile bi dëgg jox na képp koo xam ne démocrate la dëgg mooy wane ni kon Macky Sall warta laaj troisième mandat parce que bu doon lu war la bu doon lu jaadu la du ci xalaat réew mu tàkk bu doon du wax waxeet bu doon du changer suñu constitution bu doon loo xam ne maam lu waawu mi nangono ko du xalat rew mu tak parce que 2019 Macky Sall déposer na candidature am te réew mi takul kon su ba mu xalaté ni rek rew mu tak ou pas da nga xamni ne bëgguñu rew mi patriotisme nekkul su ñom parce que bu démé ba mëna xolal am rew mu tak wala gaay yi dañuy dégg rew mu tak rek xamuñu ko xolal am rew mu tak ni mu toll nga tok pour say intérêt bop nga ni bu jalé rew mu tak xoolal réew mu tàkk yan yan conséquence moo si mën a am yan yan antécédent lan moo nit ban état d'esprit la war a am ak ban ñàkk xel ba war a intérêt yi boppam di ko xalaatal sax muy xalaat am quartier bu tàkk waxuma la ak réew kon kii bu doon si état de droit lañ nekk dañ koy jàpp tëju ko parce que dafay def apologie de la violence parce que leer na ko ni troisième mandat violence la ci Sénégal troisième mandat bu demee ba xëy ñaagaat nga réew mu tàkk kooku apologie la kooku tey dañ ko war a jàpp tëj ko ci kaso bi parce que réew mi kenn waru ko caaxaane mais malheureusement on n'est pas dans un état de droit kon nag ñu xam ne ñi nga xam ne ñoom noo war a yuuxu ñoo war a jooy mooy ñi am alal ci réew mi ñi investir ci réew mi ñooñu ñoo war a tey jóg ak sëriñ kilifa diine yi tey wax ak ci débat yu mel nii xeex yenn discours yu mel nii parce que tey ñoom ñoo tekki ci réew mi kii boo ko disee xam ne tekkiwul ci réew mi dara amu fi dara lu fi lu fi yàqu mais képp ku taxaw di xalaat intérêt yi benn parti wala intérêt Macky Sall wala intérêt Ousmane Sonko mu jaral ngay xalaat ni réew mi mën nag bu ci tàkkee garaaw mais loolu c'est catastrophique loolu loolu lu ñu war a dénoncer la capitaine commissaire Assane Kayta yow miy saaga doomu euh, patriote yi naan ñoom ay dañoo insolent ñooy saaga mais lii leader politique bu mag yàgg na am sax Jumburu Sow wax na ko fii wala yaa ngi koy dégg mais kii c'est un leader politique moo taxaw ne troisième mandat bu dee deltaal réew mi kon réew mi dina tàkk lii moo jar a wax yéen ñi tekki ci réew mi investir ci réew mi réew mi tàkk gëmul ci yéen te kii waxal naka boppam xam na ni troisième mandat mooy taal réew mi kon képp ku bëgg jàmm ci réew mi na nga wax Macky Sall bu dee xelam dafa nekk ci troisième mandat mu génnaat ci ndànk ndax loolu ñoom ñi sax nangu nañ ni loolu moo mën a taal réew mi parce que ñoom ñoo koy waxal seen bopp ils n'ont pas la monopole de la violence buñ fi ne dinañ ko def te dara du tàkk fekk yaa ngi xalaat dara di tàkk rek kon xam nga ni loolu du lu ñu war a def te xam nga ni on joue pas avec le feu ce pays appartient à tout le monde on doit pas jouer avec ce pays ba de di def apologie réew mu tàkk les gens. qui c'est tellement dangereux La leen Côte d'Ivoire Libye nga tak Burkina moo ci barki Demb. ñooñu soo leen di wax parce que bu leen maanaam bu leen nekk ay maanaam bu leen nekk ay jaam réew mu la defal lépp réew mu la yar jàngal la surtout Macky Sall nga xam ne Sénégal la ko yar Sénégal la ko jàngal si maanaam Macky Sall su école publique amul woon état amul Macky Sall du am. Macky Sall ci école publique la fonction publique la liguey ba tay mu nek le président de la république kon Macky Sall il est le plus produit de de l'état du Sénégal il est un pur produit du budget du Sénégal de l'argent contribuable du Sénégal Macky Sall du Sénégal lañ ko fayalé jangam ba mu toll ni tay kon Macky Sall Sénégal tak nit war ta nek sax ci boram ci xelam di tuddu rew mu tak ndax intérêt yi mu diko ko dégg mais malheureusement légui nak ma ñëw ci ñeneen ñi nga xamni ne ñu ngi bëgg a yatu day. ngeen baal ma ci terme bi bu leen doon ay yatu day sama mbokku mbër yi laay waxal recrutement yi tàmbali na man mii rek li ma jot ci ay message mais groupe yi ma bokk yépp te mu nekk ay groupe bu mbër te ma war leen sensibiliser sensibiliser naa leen Gris Bordeaux sa heure wax jot na moment bi ñu ngi recruter ay mbër di recruter ay nit pour dinañ utiliser contre le peuple te yow yaay président des lutteurs sa jug jot na nga sensibiliser nga wax xamal ni mbër yooyu ak képp koo xamante ni tey pendant des années état bi pendant neuf ans mu ngi la bàyyi seetaan la woowul ay sponsor pour ñu jàppale làmb dooleelu la subventionné wu la amul fayalu la assurance ngay jug ak daanu yàgg sa yaay ceeb seer diwlin seer yow ngay jug ak a daanu soo amee combat soo amul combat moom yoonam nekku si tegu la ci benn condition boo mën a tekkee moom moomu tey moo am problème wala moo bëgg a dóor askan wi nga bokk yow woola bëgg la jox xaalis loolu yow yow ak mala yow xar bu ñuy jox ngooñ yow golo bu ñuy sànni banaana yéen a yem xoolal nguur gi neuf ans yooyu yëpp lan la la defal yow ndaw bi yow ndaw bi am gros bras tey nga xam ne tey bu doon su nguur Sénégal rek la sat yow sa biceps biceps yi du jóg parce que cere boo lekk sax da koy lijjanti mu seetaan la pendant neuf ans waaye heure bu bëggee am jafe-jafe heure bu ko leeree ni dafa bëgg a def lu ñaaw police mënu ko gendarmerie mënu ko mu ne naa dem jël ñi seen ndey liggéeyul muy yatu day yi muy ñun mbër ñun lay ñun ma ngeen baal ma si terme mais état du Sénégal nguur gi yatu day lañ ñu jàppee mooy su su su day jotee dañuy jël fëlan bu ñu paree ñu tegaat ñu ku xool nag si le cas njaga Ndiaga nga xam ne dee na tey Macky Sall mi ko miy topp euh, kii moo ne Ndiaga Diouf moo tooñ ndax Barthélemy da doon défendre boppam bi mu xuloowee Barthélemy la jëw jëlaat Ndiaga Diouf ndeysaan famille Ndiaga Diouf nekk ay victimes deux fois ñu leen di instrumentaliser nga xam ne ñoom bu ñu wayoon rek dañuy toog noppi xam ni ñoom dañ leen di fowe parce que euh, nguur gi nga xam ne ñooy topp Barthélemy tey ñoom ñoo leen woon Barthélemy deful dara léegi ñu jàpp leen ñoom it di leen fowee deux fois dañ leen baiser waa famille Ndiaga dañ leen baiser deux fois dañoo rey seen doom ba pare mettre leen exposer leen ñuy ci affronter Barthélemy te ñoom ak Barthélemy du ñu ay noonu ñoom ak état du Sénégal ñooy noonu ndax ñoom la état du Sénégal ñoo jël seen doom sacrifier ko rey ko muy Ndiaga Diouf tey ka leen recruté woon te dëkkoon ginnaaw raay tëdd na si un an de prison. te pourtant ba tey les gros bras ñi nga xam ñooy ñooy ñooy commanditaires yi ñu bokkoon ci parti euh, euh, Ablaye Wade nga xam ne dañ leen a woon quartier général ngeen di jëm ca fële ca euh, permanence u PDS ñooñu noonu jàppuñ ci kenn mais néew du doole ba leen recruté woon nga xam ne tey nga xam ñoo yoroon convoi du Seck président de l' assemblée ka leen recruté woon te dëkk ginnaaw raay tëdd na ci un an de prison tey amul benn ministre wala benn DG wu Macky Sall Ablaye l' bu ci tëdd un un un man jot naa ci ay message ñu naan dañoo bëgg a def xawma ay marodi feu yu bees dañoo bëgg a recruter armes yi ñu jënd gis ngeen yooyu yëpp pour jël leen yéen mbëru làmb yi yéen ñu ñu bàyyi ay atulaal la seen aar dooleeluñ leen jëluñ leen ay sponsor teg ko ci làmb ngeen di mën a gañ seen vie honnêtement déedéet tëjal nañ leen bunt yëpp xiifal leen waaye nag bu ñu naree euh, def troisième mandat wala ñu taal réew mi dañuy jël ñooñu utiliser leen contre leur peuple loolu mooy jaafan loolu mooy jaam te képp kuy nit da ko war a moytu maa ngi la gis ngay def ay leçon de morale ci TikTok bi lu baax la mais waxal lii si lii ngeen war a wax seen rakki mbër yi nga xam ne seen ñàkk tekki ak seen ñàkk ay victime lañ parce que ñun ay néew du doole ñun mbëri ndaw yi suñu ñàkk tekki ak suñu ñàkk am condition de vie bu stable moo tax ñuy exploité sur des fins yoo xam ne tey mën nañu ci rey ñu ñàkk wala ëllëg ci biir ñu tëdd ci prison ndax ñi ñuy ñi ñuy jël di ñu def nervi yëpp bu bu jàpp dee am amana ñom mën nañ leen baña japp ñun dañuy ñew japp bu dé di am ñoy dé suñu njabot ñak kon yeen mbëri magi ku melni ni je fani ma ngi lay gis ngay def le de moral nan yakante bi ci internet bi lool yëpp dëgg la loolu ngay wax yëpp dëgg la waye bëgg na nga wax ci mbër yi nga xamni ni ñu ngi leen xifal def leen ay victimes say rak sax bu leen nguur gi soxla def leen ay yatu day di leen utiliser contre leur peuple kuñ ci ray da ngay pet té nguur nguur Macky Sall bu fi jógee képp ku ci def naka su nonu dinañ la traduire en justice def trente mille cinquante mille journée un million jal kon gars yi loolu laa leen di wax en tant que samay mbokk mbër man nag xam naa ci lu ma leer am naa ci ñu ma xam seeni tur du ma nëbbal kenn du ma masqué kenn xam nga lan moo tax sa ce pays est une farce dama koy wax état bi état de farce la gis nga tey ñu mën a commandé arme Abdoulaye Daouda Diallo Abdou Karim Sall ministre de l' environnement ministre du budget ce pays est un pays de malentendu dëkk bii réew yu tàkk yëpp li fiy xew-xew na fi ñu mën a commander arme te ministre des défense yëgul ministre de l' intérieur yëgul te ñaar ñooñu ñoom ñooy war a signer pour ñu mën a jënd arme légalement ñooñu ñëpp yëguñu ñu jël arme bu toll nii quarante cinq milliards six cent ñu jënd ko ci bandi boo xam ni dañ ko def sax euh, su dañ ko dañ ko dañ ko lancé mandat d'arrêt international nga xam ne réew ma mu cosaanoo sax suufu réew moom dañ ko koo tere ndax dafay luubal ndax dëngte la té ñu né loolu secret défense la déggal secret défense xam nga lan moy secret défense parce que soy def secret ci armement ci défense moy da ngay fexé ba li ngay def non bi ennemi bi bañ ko yëg mais yow tu roules avec l'ennemi. yow ki ngay jëndanteel c'est un ennemi public parce que réew ma mu dëkk sax dañ ko fa tere ndax fay loubal ci wàllu armement day duufal ay facture noonu état yu sérieux la neen non kooku noonu bu waa jooju ñag boobu nga xam ne réewam bi mu dëkk dañ ko fa tere ndax jubadi état yu sérieux yëpp kooku seen noonu la ba Interpol lancé ko mandat d'arrêt nga xam ne réew mu teg tànkam dañ koo war a jàpp livré ko kooku la état yu Sénégal di jëndal teg arme quarante cinq millions six cent mille quarante cinq milliards six cent millions ci alalu Sénégal Abdoulaye Daouda Diallo, Abdou Karim Sall, ce pays est un pays de malentendu. Ce pays est une farce. Tay dara du xew Waye dossier Ousmane Sonko ak Adji Sarr dañ ko top jusqu'au bout parce que noonu Macky Sall la 14 morts yu dee seen yaay yaayu Adji Sarr dafa gën 14 personnes yi nga xamni ne police du Sénégal wala gendarmerie wala ci manifestation yi la leen nervi yi ray wala wala policiers yi wala gendarmerie ci leen leen tiré ñu dé. Papaye Ndiaga juuf dafa gën quatorze personnes yii dee barki boo Ndiaye sans enquête waaye xoolal gis nga garde corps Sonko yu dóor ñaari nervi yooyu ñaari imbécile yooyu mancoréen yooyu ñu dóor ca cikki xaaral léegi ñu def réquisition dem jëli leen waaye ñi rey doomu Sénégal yi ñu rey mois de mars ñu seen ndey liggéeyul ndeyu aji Sarr mooy ko gën a liggéey ndeyu Ndiaga Diouf yu Ndiaga Diouf ñoo gën a liggéey quatorze personnes yi ñu rey manifestation la waaye xale yi nga xam ñaar ñu nervi yu bon ñi nga xam ñoo doon attaqué Sonko fële ca Cikki bañ duma leen ñooñu ñooñu ñooñu mu toll nii billaay wallaay suba nga gis léegi léegi nga gis ñu def ay réquisition kon procureur auto-saisine yi dem jàpp leen bu ko deful sax ba pare dina dugg ci biir bu dee benn nit sax dinañ ko jàpp ci ko ci ci ay àndandoo Sonko ce pays est un pays de malentendu soo bokkul ci nguur. yow amoo jàmm mais boo boo koy suñu nguur loolu neex def xoolal li ma leen wax rek quatorze personnes ñoo dee ndax ñooñu Adji Sarr ndayu Adji Sarr te ñooñu Adji Sarr dafa ne dañ koo violé ñii dañ koo rey ba tey ubbiwuñ dossier mais dossier Adji Sarr dañ koy liquider parce que dañ ne ñaari Sénégal Adji Sarr est dafa nekk Sénégalais spécial ndeysaan Adji Sarr li mu am kenn am ko xoolal ki ñu fekk Kër Massar nga xam ne Pastef la bokk ñu violé ko rey ko moo tax su ma déggee ay Françoise Hélène ak ñi nga xam ñooy ay Mati Trois Pommes ñu ne dañuy defaan la cause des femmes ñu jàpp ay doomu Sénégal rey leen baiser leen euh, euh, violer leen torturer leen gisuma leen ngeen jóg ci dossier Adji Sarr rek laa gis ngeen di ne foofu ngeen di défendre la cause des femmes mais ne Adji rek mooy jigéen ñaata jigéen lañ fi fekk di leen violer di leen rey du mujj fenn du mujj fenn mais dossier bi dafay spécial moo tax Adji Sarr ndeyam moo gën a liggéey ndeyu 14 personnes yu dee ci mois de mars moo tax bu ma naan ce pays est une farce l'histoire chaque jour daf may jox dëgg kon nag gars yi ñu gën a nekk nit surtout ñun mbër yi ngeen xam ne du ngeen ay dof wax naa ak yéen nag man nag du ma nëbbal kenn képp ku ma ci gis nga nekk nervi naa la dénoncé nañ la bënd ci list bi nguuru Macky Sall dafay jóge dinañ la topp giri kan mooy roi des années sax Modou ba yaawu jaal laa wax wax naa leen ko yéen ñëpp Modou Lo ba yaawu jaal man ko naa xam naa képp kuy mbër ku ma ci gis nga nekk nervi ku ma ci gis ñu recruter la dinaa la noté te dinañ la topp dinañ la xool bépp injuste boo def dinañ la jëli balaa nguur gay jeex sax dinañ la toroxal parce que boo bëggul sa réew sax war ngaa bëgg sa njaboot boo bëggul sa réew sax war ngaa bëgg sa bopp nekk leen nit mbër yi ñun mënu ñu nangu ñun man mi maa ngi wax ak yow dañoo signé convention état employeur ak Modou Fall ñu créé association tuddee ko FILS créé euh, en entreprise tuddee ko arène bi sécurité lépp rek ngir di former mbër yi pour leen insérer pour ñu bañ a nekk ay nervi pour ñu nekk nit tey Modou Fall signé ak ñun état euh, convention état employé employeur ak euh, ki nga xamante ni mooy Bamba Mbow arène bi sécurité mais signé ak ñun un an. Nous ay conférence de presse des ay signé ay contrat nous daf ñuy un salaire salaire ba sax taxul ñuy mais ñu ñu ñu dugg ci ngir nervi ngir bon plus de 35 personnes 4 mois ngi nous mënuñu jot salaire nous avons fait un ñu nous avons ñu recruter waat nous, naan dañ ñuy cinquante trente pour préparer euh, le 3 wala préparer troisième mandat de recruter. di fay xaalis bu weex tàll te ñu ñu yoreel suñu xaalis léegi lii c'est pas à dénoncer moo tax suñu taxee ne nguur Macky Sall dañuy dañuy mbalak dañuy tooñ dañuy tëj dañuy mais mbëri ñu ngi kaas quatre mois ñu ngi nii ñu signé loon contrat état employeur Modou Fall yàggul dara mais ba tey ji quatre mois bi mooy quatrième mois jotuñu seen salaire te ñii ci la ñuy fay luyaas ñi léegi ñooñu noonu lañu fekkaat ne leen kaay leen mais kon état am na xaalis te lan lañ doon wax virement moo duggagul état amagul xaalis xool ce pays est un pays de malentendu dañu liggéeyloo nit ñi duñ leen fay ba liggéeyloo enseignants yi duñ leen fay ba pare jël alale bi di ko jox ay cagaa ki nervi di ko jënd ay lacrymogène ki arme pour mater seen peuple lii mooy lan nekk leen nit mbëru làmb yi nekk leen nit gros bras yi nekk leen nit gënoo leen fi cest à kenn ay tàppeen ngeen ay pëpp ngeen xam nañ leen bu baax ñoo leen ëpp état ñoo leen ëpp entraînement fuuf te duñu ñu nekk nervi formé nañ leen def nañ leen ay nit dinañ leen kaasal nag ci dëgg mais képp ku ci nekk nervi wala ñu recruter ngay dof dof lu jaay bëgg xaalis dinañ la repérer te dinañ la teg ci code ba nga xam ko loolu bi yóbboo mu leer yéen nag mbëri mag yépp laay lancer appel Bombardier fan yi maa ngi dégg ngay ngay sensibiliser lii na nekk sa combat parce que benn mbër su fotee mbër yëpp la ñuy wax kon yéen ñëpp jóg leen ngeen lancer alerte fi mu toll nii may waxee ñu ngi woote laax di recruter plus de deux cent trois cent six cent ay mbër ay jeunes ngi fi toog fi di toog neuf ans neuf neuf am liggéey ñi jàng ba am ay diplôme ñu liggéey tey si benn situation bu gàtt ñu ciy recruter ay six mille jeunes di leen fay ay trente mille quarante mille pour ñu maate seen peuple xoolal peuple bu xoolal peuple moo war a ñàkk fayda à ce ngir yàlla def leen alal réew mi fi ngeen ko war a def mën a waa xam réew mi ko gën mën a waaxu xam réew mi ko gën neexum ngont xam fooy fanaanee ko gën ngir yàlla alal ji ngeen di jël di noot nit ñi pour di leen napp pour di leen toroxal li ngeen war a def mooy jël alalu réew mi teg ko fi ngeen ko war a teg ndax dangeen ni dem seen heure dafa jot seen heure dem képp ku taxaw ma ne képp ku ba dama koy wax chaque jour képp ku bañ Ousmane Sonko bugguloo Sénégal parce que Macky Sall réduire opposition bi comme ni mu ko waxee à sa plus simple expression jàpp ñuy toroxal dindi ngor dindi dignité dindi lépp Sonko ñëw yàlla indil ñu ko ci kanamam loo xam ne prévoir ko woon Sonko mooy obstacle boo xam ne moo war a mën a sauver Sénégal ci lan ci dynastie bi fi Macky la buggoon teg fay Sall toog fi ba heure bu ko neex dem ni mu négocier suñuy contrat baaxul jël alalu réew mi négocier ay 10 pour cent lañ am ci suñuy ressources naturelles jël réew mi yi turki yi néew di doole yi di dee. léegi Ousmane Sonko ñëw sacrifier lépp nga xam ne tey bu ko neexoon dem ànd ak nguur comme ni ko Idriss Seck defee mu préféré nekk autorité du peuple ñuy am ay sixième sens si moom lan moo tax ñuy am sixième sens ci Ousmane Sonko ak risques yi mu jël yëpp ñu ngi koy woo nee nañ le trois moom nag moom moo xam moom bu wootee bu wootewul moom moom dafa war a bàyyi baax baaxlu parce que Ousmane Sonko du nit ku baax ci kanamu nguur gi ba muy def nemmeeku rek ne woon na bu kenn ñëw teewul ba mu génnee dañ ko jooy moon toroxal boo ñu woowee dañuy genn boo ñu woowul dañuy genn ñun suñu réew lañuy défendre on défend notre patrie Ousmane dañ ñoo fekk ñu goré defoo ñu ay gor dañ ñoo fekk ñu gëm suñu réew defoo ñu ay patriote dañ ñoo fekk ñu bëgg Sénégal dañ doon xol kay njit bu adéquat ak suñu bëgg-bëgg yoy ñu ko doon reebe ci ay Thomas Sankara ay Patrick Lumumba ay ay Nelson Mandela yalla indil ñu la lool rek la dé mais dañ ñoo fekk ñuy jambar di gor di gam amul dara lo xamanteni tay ji dem ñu koo gën a déedéet kon bu ñu la dee woo bu laa toroxal ñun doo ñu wax yaa ñu dañ lay toppam ñu la topp daa am loo xam yaa ko moom mais ñun ñoo ko moom ñun suñu pëpp suñu Sénégal dañ koy sauver te da bokk ci ñi nga xam ne dañ leen a yaakaar ci Sénégal comme ñaari junni yoo maye mayal ku la neex mais ku bëgg a dégg dëgg jàppal C'est le Bon TV asalaamaaleykum wa